ministre bi ñu doon amal ni ki démb fii ci diwaanu à Sénégal ca palais de la République njiitu réew bu Sénégal di président Diomaye Faye joxe woon na ay dogal yoo xamante ne bëggoon na ñu jëfe ko ngir nag fexe ba li nga xamante ne moom mooy wàllum dëkkuwaay gën a yomb ci askan bu à Sénégal loole nag mu bëggoon nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay bailleurs publique dugal ci seen loxo ñi nga xamante ne dañu leen nag jox ay fonds publics ngir nag ñu jàppale le ci wàllum habitation sociale ba ci sax kër gi caisse des dépôts et de consignation bëggoon nag mu dugal ci loxoom ci li nga xamante ne moom mooy mbirum dëkkuwaay banque de l'habitat fàttewu ko ak yenn institution financière yoo xamante ni ñu ngi fii ci douane Sénégal loolu nag directeur général bu CDC toogul di seetaan moom Fadilou Keita ci saa si la jël décision bu am solo ngir nag fexe nag ba dooleel ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi ci dogal boobee moom Fadilou Keita nee na nag dinañu fexe ba taxawal li nga xamante ni moom mooy laboratoire d'analyse des matériaux de construction ay filiale ak li nga xamante ne dafay ay entreprise yoo xamante ne dañu spécialisé wu ci wàllum BTP maanaam nag mbirum ab bâtiment di ci ak ñi nga xamante ne dañuy ay partenaire technique ngir nag fexe ba ñu nag gën yombal li nga xamante ni moom mooy wàllum dëkkuwaay fii ci diwaanu Sénégal dogal boobee nag la jël ab communiqué la ñu nag biral di ci xamle di ni mel nee na nag jamono jile daal nañuy nag ciblé ñi nga xamante ne jamono jile dañu ay coopérative d'habitat ay développeur privé ak li nga xamante dafay ay ay structure yoo xamante ni dañuy yëngatu ci mbirum kër ngir nag ñu fexe ba li nga xamante moom mooy dogal boobee président la république jël ñu mën see nag bu baax a baax CDC jamono jile loolee def na ko yëfu boppam jiit ko daal di xam ne nee nañ nag ba fa nga xamante ne moom mooy ca port urbain bu nekkee ca diwaanu Diamniadio Lac Rose ak li nga xamante ne moom mooy SNHLM SICAP SA ministère yi nga xamante ne ñoo laale ak mbirum habitation yi nga xamante ne ay concessionnaire di yeewu fii ci diwaanu Sénégal dugal seen loxo bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy mbirum habitation boobee ay service public itam fàttewuñ leen benn yoon ak bépp acteur boo xamante ne mbirum habitation dañ ciy yëngu loole naka Fadilou Keita moo ko daal di xam ne ñu wax ci leneen di ay kàddu yoo xamante Pape Alé Niang di actuel directeur général bu RTS yëkkati woon na ko ab poste la defoon ca compte X loole nag juróon polémique fii ci diwaanu Sénégal moom directeur bi yees bi nga xamante ni nguur gi yees gi teg ko fi terewul nag benn yoon bu leen bëggee wax dëgg daf leen di wax dëgg moom Pape Alé Niang ay opinion am kenn du ko ko tere exprimer jamono ji leen nag defoon na poste boo xamante ni juróon na coow ci réew mi jàpp na ne nag li nga xamante ni moom mooy liberté d'expression kenn du ko ko xañ moom directeur général bu RTS franc parler nag fii ci diwaanu Sénégal kenn dootu ko natable ba muy àddu ci téeméeri fan yi nga xamante ne Jomaay Fay defagum na ko ci réew mi autorité yi yees yi def ko fi nga xamante ne moom mooy ci bopp réew mi nee na nag jamono jiile nguurug président Jomaay Fay jiile li nga xamante ne moom mooy ay futilité loolee la ñu jël def ko ay priorité ñetti weer cot la ñu defagum ci réew mi li nga xamante ni moo gën a élémentaire loolee la ñu jël def ko nag mu nekk ay urgence yoo xamante ne ñu ngi koy réglé ba tax na sax muy ñaax autorité yi ngir ñu wane mbirum transparence ci liggéey yi nga xamante ne dañu koy sumb fii ci diwaanu Sénégal jàpp moom Pape Alé Niang la mu jàpp mooy benn solution cotte moo am mooy nag wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy peuple bi dëgg loolee mooy mën a tax rupture am loolee nag mooy mën a tax rupture am fii ci diwaanu Sénégal buum nag bañ a dellu ca mboy mboy ba loole nag nekk ay kaddu yoo xamante ne ba mu ko yëkkatee juróon na coow ci réew mi ñu bëri nak di dal ci kawam rawatina nag ñi nga xamante ne dañu ay militant yu Pastef transparence kott la ñu soxla bu fekkante ne nag amul dafay jur jiixi jaaxa si xelu askan bu Sénégal ñu bari nag di laaj lan moo waraloon Pape Alé Niang def bile déclaration loole nag ba léegi ëlëm na askan bu senegal lu ci mën a am Pape Alé dafa mel ni nag ku doon avertir ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew bu Sénégal di président jomay Faye jërë ngeen jëf mbokk yi doon teewlu ci chaîne bi nga xamante ni moom mooy Rewmi TV loolee mu fi yësadi ci xibaar ñu leen baax a baax di Indian